jërëjëf euh, Dakar People ak euh, saltige Fatou Ngom euh, yàgg nañ ko seet si sax di waxtaan ak moom ci wàllu xam-xam ci ay jamono yàgg na nag lool ay sorteem sax mun nañ wax ni bariwul foofu waaye gis ngeen ni gajoon na fa lool par rapport ak yaramam mayu ko ko ak ñàkk jotam et puis ak li nga xam ne moom mooy liggéeyu doomu aadama yi nga xam ne day faral di nekk ci ay loxoom ay nit ñi yaakaar ci moom surtout wàllu njurum doom euh, mère Fatou Ngom boroom jigéen ñi nga xam ne ñi ngi taxaw faj la ba pare en même temps di dàmp sa doom faj la ba pare boo amee doom mu lay dàmp di dàmp yaayam euh, bu doom ji juddoo alors euh, ajaratu Fatou Ngom ci wàllu actualité la ñuy waxtaan ak yow Kaolack fan yi ñu génn gis nga li fa xew par rapport ak Dakar People sa sortie bi mooy sa deuxième sortie mm-hmm. war nga ci wax li ñu def sulli néew bi rey ko taal ko ba pare kon naa bëgg a wax est-ce que doomu aadama bi am na droit def ko lu may loo xam ni place yàlla alors malgré que am na ci lu mu nekkoon ñoom ñoo ko xam parce que ay dëkkandoom jàppoon nañ ni kii boroom ñaari turle la woon mu génn àddina xamuñu lu tax mu dee malgré que yàlla day rey et puis euh, ci say waxtaan jàpp nañ ni. yàlla mooy reye moom moom lakk te am na loo xam ne doomu aadama bi def na ko génn ko ba pare taal ko ci kanamu waajuram ba waajuram amee ci malaise génnaat àdduna ndax jaroon na ko beneen bi ci topp mooy am na ay révélation yoo xam ne wax nga ñu ko euh, loo xam ne musoo ko def xaar leen ko am na li mu war a waxtaane ci diggante Ama Baldé ak Modou loo na ngeen ko xaar combat bi jour ji moyen tey la lan mun nañ wax ni tey la euh, mercredi jeudi vendredi samedi dimanche jour ji moyen 4 tey Modou Lo mi ngi préparer pour def open press fi nga xam ne moom mooy stade municipal bu Parcelles Assainies Ama Balde def na ko démb état wu Ama Balde ni mu mel est-ce que moment bi mystique jàpp na ko wala déet est que Modou taxaw na wala déet moom dina leen ci leeral loo xam ne sax su ko def te daan na ñaanal mbëri eh, donc géej gi gis ngeen tey euh, ki nga xam ne moom moo ci décédé Papito Kara Papito Kara gis ngeen ko image yaa ngi daw koo xam ni mafia kàcc kàcc yi dee na ci géej gi xale yi te dégg pourtant yàgg nga ci wax. tey gis nga mi ngi nii ba léegi taxul bàyyi ko lan ngay nuyoo d'abord ñu soog a ñëw ci waxtaan wi. asalaamaaleykum waa dakaar bi po waa Sénégal waa monde entier seen maam seen yaay faatu Ngom mooy génn di waxtaan ak yéen di leen ñaanal jàmm nag yàlla nañ ko yàlla booleeg booleem jullit fii ba dëkk bi nga xam ne ci la xale yépp réer di dem yàlla na yàlla sàmm leen te defal leen lañu bëgg yàlla na yàlla musal nu ci ndok musal leen ci maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Mbaye mën Mansour di ko ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér yal na fi yàgg loolu te di ñaanal waa Touba sunu sang bu baax boobu nga xam ne neexiree rafeti wax mën a dox bokk mën a dox jàmm balay sa buri Mbàkke bala maa ngi lay leen ñaanal jàmm ñoom mm-hmm. sëñ Muntaxa mm-hmm. di dem yoof sunu kër di leen siyaar di leen ñaanal di leen ñaanal gudd fan ak wér yàlla sàmm leen di dem Kaolack ba tey nga xam ne foofa la waxtaan wa sëriñ bi ci Kaolack maa ngi lay siyaar di la ñaanal jàmm ak gudd fan niki noonu laa def njaasaan yal na yàlla defal jàmm nun ñëpp te boole na ko yal na yàlla sàmm leen waaye amet li may jëkka ñaawlu mooy li nga xam ne moo xew Kaolack ci la ñuy jërëjëf yal na yàlla sàmm leen gis ngeen ndeysaan avant may ñëw ci question bi sax ñu réponse bi ndax am na lu ko naqadi waaw Euh, li ngay ñaawlu Kaolack ñëw ci parce que nag vraiment ëpp na. waaw li may ñaawlu Kaolack te mu mitti lool mitti bépp jullit nag ku di jurkat sax nag mitti na la ndax ku ñu tiim sa doom mu dee ñu suul ko ba yàgg ñu sulliwaat ko ñëw di ko lakk ba nga xam ne ndey ji dese dana ci. lu metti la bu doon keneen itam noonu lay demee ku mu ci yonte doon ñoom ñoo ñu ko def ku ko ci sa ndey defoon ba ku ko ci defoon sa ndey ñun lay def jureel dafa métti doom ci xol la ne. defin wa ñaaw na te rey la rey moom yàllaa ko moom waxuma naa nag moom xamunu lu ko rey xamunu lu mu doon nekke laajuñu ko nu ko it dee na daal niiw moom alali yàlla yàllaa xam fa mu koy dugal yàlla xam na mu koy def yàlla na ko yàlla yërëm waaye nun ñi nga xam ne noo fi nekk ah rey lakk daal nun xamunu ko mësuñoo lakk niiw it yàlla bu nu ko gis mukk te lu ñaaw la lu ñëpp ñaaw la lu naqari lu mitti ñëpp nag euh, dégg nañ ne sax nga ni ray lakk. yàllaa ko moom yàllaa ko moom ñu déggaat la ci biir wax sax wax nga sax maandu mënut a weesu sax nga ñaanal ko ne yàlla ko yàlla yërëm. waaw parce que yàllaa yor yërmaande. malgré que kenn ku ci nekk la ngay def yow xam nga. Mhm. boo wéetee sa duus wala nga wéet sa néeg tëdd ba. ruqus man. d'accord mais génn lakk bi sulli ko ci kanamu waajuram comme ni nga ko waxee. di ko lakk ci kanamu waajuram boog. ba yaayam amee ca malaise génnaat na muy ñaari néew. est-ce que lii jar na ko. parce que te nee nga lii rey lakk yàllaa ko moom. yàllaa moom rey lakk yàlla moom moom rey lakk rey moom lakk yàllaa ko moom lakk yàllaa moom àjjana moom moom safara moo xam na kenn ku nekk fa mu lay dugal yaa xam néew bi daal néew yàlla la yàlla lañ ko war na dénk. Mm-hmm. waaye waruñu ko woon a sulli dem di ko lakk. Mm-hmm. ñaawlu naa ko métti na ma métti na bépp jullit. Mm-hmm. métti na it bépp jurkat nag ak lu mu mënti def rek néew bi néew bi yàlla nañ ko baag yàlla. bi néew yàlla mais ajatu Fatou Ngom euh, ba tey ci ndaw ñi euh, malgré que am na li fa xew wax dëgg yàlla ñoom xamoon nañ ne lii la est-ce que mag ña fa nekkoon ci koñ ba biñ koy denc ndax nit moom dee xanaa kenn du ko sànni dinañ ko suul waaye malgré am na la ci lislaam wax mais fi ngay waxee mooy ba tey place su place yàlla rey maanaam lakk gi daal moom moo moom ngeen ciy ñaawlu lakk moom yàlla moom safara moom moom àjjana kon nag ba mu ba mu dee rek la fi yàlla dañ ko mm-hmm. war a na jébbal yàlla rek ba koog moom mm-hmm. ak jëfam ndax lu waaye def fa nga koy fekk wallaahi lu waay waxit fa nga koy fekk yal na nu yàlla xiir ci lu baax ak lu jub te nga koñ ba mu nekkoon mm. ñi nga xam ne xamal nañu loolu mm. mënoon nañu cee dox ay jéego mm-hmm. ba ñëpp xam ne dox nañu ko ci waaye nag ba mu dee ñu door koy siiwa loolu lu ñaaw la it ba tey maara mu ko et puis message bi ñu ci laaj mooy ñi nga xam ne ñi ngi topp seen nafsu bakkan nañu bàyyi parce que eh, borom ñaari tur yi vraiment mi ngi bëgg a ëpp. fu waay mën a nekk nag moo xam Sénégal moo xam bitim réew ak foo mën a nekk di nga dee. Ah. kon it ña nga xam ne ñanga ca nañ bàyyi xel bés bi. segam leneen lu dul loolu sax ngay nekk di xalaat ëllëg yowmal xiyaam waxuma la ak loolu. ëpp na ëpp na doxalin dara yi àddina jaru ko ah yàlla nag moo yor mm-hmm. njéggal comme ni nga ko waxee mm-hmm. waaye daal moom ajaratu faatu mi ngi mi ngi artu ñi nga xam ni ñoo def lakk ci beneen bi ci topp mooy bala ñuy ñëw ci xam-xam bi parce que nag suñu Dakar people yàgg nañu waxtaan ak ci wàllu xam-xam na nag gëj dafa lool ah révélation yi nga fi doon def di bëri di faj nit ñi ci wàllu xam ci wàllu doom wàllu njariñu seet ak sarax gën nañu ci wàllu xam yàgg nañu waxtaan ak yow ci wàllu njariñu sarax wàllu njëriñ doom yooyu dinañ ci ñëw mais géej amul benn télévision boo musul dem te waxoo ci géej gi ci xale yi amul benn site internet boo xam ni ku seetaan ajaratu Fatou Ngom saltige xam ni yàgg nga àddu xale yi ci géej gi même bu dul Barça bi ah, yàgg nga leen àddu na leen bàyyi leen géej gi di ngeen ci dee Papito dem na dee na géej lan ngay àdduwaat ci ndaw ñi te yàgg nga cee wax. la ci daan wax démb ak bët ki démb rek laa ciy wax ndax géej dafa amul bàngaas amul dara. yow yaa ngi dem te fi ngay dem xamoo fu mu yem xamoo fu mu yem xamoo fu mu yem nga dugg ci biir nag te géej lu ne ci am de dugg ci gaal li am ci àddina moo am ci géej gi allahu jéere ji ak ndox mi kon nag danaa xale guddi ak bëccëg toujours saa yu ma toogee wax nga ba sonn maa ngi leen di artu ci géej gi waxan naa leen ne leen ñu bari nañ ci dee te des na wax naa ko ba sonn de lu am la nag moytu leen géej gi toujours maa ngi leen di artu ci géej gi géej amati bànqaas. te gis nañ ñu ba léegi fi mu ne nii dañu leen xabtal comprendre luñ maanaam. kenn kay du tey doo toog te trois cent et quelques ñi mais. réew mi gis benn ndaw ah. xale yaa ngi dee xale yëpp dee nañu. deseetuñu benn xale fu nu jëm nag ëllëg te xale yéen war a yor ëllëg ah moytu leen géej te bàyyi géej man day wax dëgg yàlla. wax nga ba sonn. wax naa ba sonn jëf naa génn naay sarax ba tay waaye mënuma ci dara dëgër ngeen bopp te lii daa mel da ngeen ko téyetul nag far xanaa dañ leen a xabtal pour ndox mi moytu leen géej gi te bàyyi géej gi toujours na laa dëkkee ak yéen di leen ko wax des na de moytu leen ndox mi. yàgg na koo wax. Euh, te chaque jour mun a euh, yàgg na koo wax te chaque jour mun a bàyyi leen géej gi loo xam ne xamoo fu mu yem. nga dugg ci gaal gi naan yaa ngi jëmee Espagne te fa nga jëm sax ndeysaan dafa amatul dara. fa nga jëm fa nekk sax ñu ngi am problème bii ans nekk ci ay difficultés yoo xam ni boo liggéey tey bu subaa doo liggéey li xam. ñi ci bari yëpp a ngi ci mbedd yay fanaan ñi léeg-léeg nga gis ko envoyé na gis nga maa ngi nii ci mbedd yow ma fu ma jëm liggéeyu mu amuñu dara daanaka amatuñu dara nag. kon ndax jaar ci ndox mi jar na ko. jaru ko de. nga gis ku jaay fii place am wërsëg dawaa nga mu ko boo toogoon fii nga juddoo yaroo fi sax yàlla sunu borom mën na la lay sa wërsëg ba nga juddoo la ko def ci yow. yaa xam nag mu jox la ko ci bi ngay ndaw yaa xam mu dem bay mag. je te te man de li man damaa jaaxle. doy na war ay papito dem na. papito kara maa fi kàcc kàcc bi dee na. ca géej gi la jaar moo di responsable ay waay man ay kii lu ko ci doon xiir. responsable bàyyi na fi rongoñ de. donc il faut ngeen ngeen ngeen déglu. li leen ajaratu Fatou Ngom di wax ci wàllu géej gi. parce que du ñoo xam ni. dañuy toog rek di wax nii rek seen su bakkan déedéet ci mag mu toll nii. defee révélation ci wàllu corona bi feebar bi moo ko njëkk a wax fii bi mu fi dugg waxati rawatina nag géej gi mi ngi nii dem leen ngeen seetaane ay waxtaanam ngeen xam kan la donc nag léegi dañuy ñëw nag ci xam-xam bi soog a ñëw ci combat Modou Lo amaa bale ndax gis nga ci jël wu rëy wax nga ko fan yi passé gis nga ci gàllaaj koo xam ni moo ci ëpp gàllaaj wax nga ko da ci ñëw gis nga état Ama Baldé démb rek te bi nga waxee kon dafa mel ni la nga waxoon ko rek am na lu feeñ am na ku ñu ci jekku mais ci wàllu xam-xam bi lu tax souvent ngay faral di insister naan de leen génn seeni sarax ci wàllu rab parce que rab danga koy gis doo ko gis te day nekk ak yow di la yàqal. toujours ku judd judduwaale nga rab. Mhm. ku judd rek. wax nga rab. ku judd judduwaale na rab waaw. loolu moom yàgg na sunu borom a ko def. rab nag bu la duggee. Mhm. lu ne la lay dikkee. la ilaha illallah. rab mën naa téye jigéen ba du gaaw a am doom. ba mën naa téye jigéen ba du gaaw a sëy. du gaaw a sëy. mën naa téye jigéen ba. ku ñëw nuyoo rek dem sa yoon. ku ñëw ak wax dem. ak te ka mu gën a sonal mooy ki gën a rafet. ki gën a rafet waaw saa yoo rafetee. rab yow la gën a bëgg ci la jinne bëgg jinne jigéen ju rafet waxambaane jeeg bu ndaw ak borom kër bu ndaw ñooñu la rab gën a sonn gën a bëgg. ni ñu la bëggee ci sa ndaw di la topp noonu la la rab ak ginne bëgge kon nag nañuy ah, farataal seet seen yaram di génne seeni sarax di def ay ñaan ak seeni lasa di julli di boor di sàkk sarax mais dañ laa dégg sànq ci biir wax nga ni day yàqal ku munta am doom léegi foofu la ñuy taxaw waaw bala ñu ñëw ci ñu munta sëy ñi léegi ki munta am doom euh, euh, mu dugg ci biir néegu sëy yan signe lay def nga xam ni kii soit rab la mais léegi foofa day ñëw ci wàllu règle wala soit xuloo ak jëkkëram wala bu sëyee mu tuuru wala ndoxu boroom këram oyof yooyu lan la rab rab lu ne lay def mën naa téye sa jëkkër ba sax du bu dem bu dem nekkee état ba bëgg a jëm si ci yow rab ba ne ko teewtoo fa ma loo dem ne ko sa yox mu dellu wala mu nooy loolu ci mën dara mën na tëj ci yaramu jëkkër ji ba mu tàyyal sëpp ko ay nelaw mën na itam jaxase ko ba fu ñu to bu fekkonte ne ka mu gën a bëgg histoire la koy indil ñuy coow guddi ak bëccëg ba mer dugg ca ba sëy du am foofa loolu yëpp jin euh, euh, mbirum rab la mën naa téye jigéen lu mu gis bu demee ba sëy bu sëyee ba noppi mu tuur ko mën naa woyofal ndoxum góoram jëkkëram mën naa tuur ndox ma mën naa téye régalam mm. rab lu ne lay def jigéen lu mm. ne lay def góor léeg mu téye ngóor ak góor ba góor du mën dara waaye lu ci nekk nag ah boo génnee say sarax yàlla mën na ci saafara ndax kenn mënul dara yàlla rek moo mën. d'accord eh, turandoo yu nga bari macha allah ñëpp a ngi koy xam. Mhm. moo xam fii moo xam États-Unis euh, moo xam France bari nga fa ay ñoo xam ni faj nga leen yàlla mu muccal leen ñoo jën ëmb mais bala ñuy ñëw sax ci dàmp beeg yooyu et eh, que nee nga koo faj bu amee doom doom ji di ko dàmp bu fekkee ni nekku fi. dinga nga ko yónnee loo xam ne ci la ñu dàmp xale bi su yàlla defee jàmm nag yaayam ñëw fii ba jël vacance ci nga koy dàmp bu dee ku nekk fii la nag su amee doom yaay dàmp xale bi yaa koy dàmpal waay juróom mais biteel bi nga xam ne yaa ngi koy joxe lan lay raxas ci biir bi parce que am na biteel yoo xam ne yaa ngi koy joxe ki ko naan jël ci ëmb waaw biteel bi nag li koy indi lépp li ko waral salte bu mu nekk sa biir bu ndax léeg-léeg rab sëpp fatt sa butitu njurukaay ndox mu dikk romb la rek tuuru léeg-léeg rab téye sa régal te régal bu ñëw doom du dikk léeg-léeg rab def la naqaru xol woo xam ne sa xol du nekk du neex doo nekk da ngay tëdd ba guddi doo nekk di waxtu mbaa nga mer coowal guddi it baaxut ci góor ba leen koy def d'accord ok danañ ñëw ci loolu léegi biteel bi kon ki nga xam ni règle bi juste normalul mbir da koy naa bu ko naanee day raxas biir ba mu set wicc da koy saw bu seetloo am sawam dina xam ne saw mi mu daan saw wute naag saw mi nga xam ne mooy jàngoro ci euh, garab gi génne du la métti biir biir bu mu fekk muy métti da koy foofa lay yem méttitu biir bu daa da nga daan gis fóot sa biir di métti soo naanee garab gi dootoo gis biir buy métti su fekkente ne da nga daan da daan tëju daa nga xam ne daa fatt bu tuuti njurukaay gi boo ko naanee da koy raxas ba mu set wicc feebar bu mu fekk sa biir daal biteel bi da koy raxas ba mu set nga saw ko ba mu jeex tàkk. d'accord mais am na ñoo xam ni bu fekkee dañoo am kiis. ba tey kis si. Mhm. Euh, bu fekkente ne di jur lool lool lool ba bari. Mhm. ndax mën nga ko boo dee da ngaa am kiis. Mhm. di nga naan ñaari biteel ba ñett. waaw. di nga maanaam mu seeyal ko ba mu jeex d' accord di nga jël biteel bi benn yoon ñaar yoon ba ñetti yoon waaw mais am na ñoo xam ne bu dee amuñu ko mën nañ ko jël benn yoon ëmb bi mën a taxaw waaw léegi après su jëlee ëmb foog mu def ñetti weer nga soo ko jox téere bi pour wàllu rab bu amee ñetti weer mm-hmm. day yónnee ndaw wooma moom nekkul bitim réew ma mu ne fii mm-hmm. mbaam bu nekkee fii na dugg ñëw am na téere bu ñu koy jox mooy téere wattal jox ko beneen càngaay bi mujj nga xam ne da koy sàmm ba buy mucc yàlla sunu borom rek ci man jàmm jàmm rek la ci am incha allah. d' accord eh, bala booy mais euh, tant que bala bala moo fay dafa am doom ba pare. waaw bu fekkee génne na saraxam. bu génne sarax ba ma commencé ko samay garab. Mhm. sama paye bopp moom ñaa laajuma ko ko. na dem ba teg doomam ci kaw lalam bi surtout dem daal ci la ma war a fay. la muy fay duñ ko wax ci média bi. waaw alors eh, ci côté góor ñi dañ ci ñëw ñi nga xam ni seen ndox dafa oyof. am na benn garab bu tuddu takarnaase moom moo koy joxe. ci ñaar fukki plante la ko liggéeyee ak ñaar vingt deux plant takarnaase boobu non seulement dafay dindi infection du ko wone fii parce que bët baaxul takarnaase bi dafay yokk sa man maniw day tax man maniw bi am doole bu see sa ndox dafa oyof parce que am na ñoo xam ne dañuy seeg seen soxna bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ñu génnee li war a génn ci ñoom dafay oyof dangay xam ne liy weexul forte dafa war a weex ba pare far ba pare am tuuti xet. donc loolu mooy jaar yoon ba nga xam ni soo ko naanee non seulement dafay rafax raxas sa nax ba pare dafay tax di nga sëy lu yàgg doo daanu beneen bi topp mooy am na garsa garsa wadu Ousmane Sonko am na pomade boo xam ni garsa garsa la tudd garsa garsa bi nag dafay yokk autouru awra bi pomade la boo xam ni soo koy diw sa awra bu dee rab bi yaa ko wax léegi rab dafa am ñoo xam ne day delloo seen awra pomade bi nag soo ko jëlee di ko diw boo sangoo suba ak ngoon soo ko ci diwee da koy yokk ba pare da koy dëgëral ba pare da koy guddal ba pare day tax mu am autour incha allah te amul benn effet secondaire garsa garsa la tudd ku soxla ci garsa garsa bi ak takkarnaase bi numéro yaa ngi noonu alors ci li ñuy ñëw nag ginnaaw njurum doom mi nee nga sa maam moo ko daan def waaye loolu da feeñ na tey ndax li nga ci am ci ay turandoo kenn xamut nu mu toll. mais léeg nga daje ceeg ñoo xam ni seen affaire day dëgër nga xam ne ñii rab dëgg-dëgg mooy xeex ak ñoom. waaw as yoo xam ne boo ko dina am aas yoo xam ne boo ko amee sa régal taxaw. Hmm. faju dëgg lay téye. ndax am na ci koo xam ne itam wax dëgg yàlla dem na ba war a dem ci passé ak njurum doom ndax ku dem ba am juróom fukki ba teg. Hmm. soo doo yaakaaratoo doom. vraiment waaye bu fekkente ne am nga nag fóot fóot nga sa régal ñëw na. nga ñëw ci man ma jox la sa néeg bala nga maa fay dangaa teg sa doom moom tànk régal jaa ngi ñëw rek bu ci yàlla àndee di nga di sa doom waaw. tant que règle baa ngi ñëw. di nga gis rab d' accord mais li koo xam ni euh, avant ñu ñëw ci ñu mën a amunta am jëkkër tëj ci làmb ji. mooy day jàpp koo xam ni day rafet lool. Ah. mel ni mu war a mel mais góor gu ñëw. dem day dem. góor gu ñëw dem loolu ba euh, ñu te daal ñëpp sax duñ jàpp. mu ngoog waaw dañu ne rab amul. waaye ku ne rab amul toogal di xool te naa rab amul rek bañ a faju rab. waaw léegi. li eh, jigéen war na nga war a mel ñi la gis bëgg bari la kul ñëw ba wax ak yow ne la fa ñëw bu la wooyee téléphone dootul ñaar bu fa ñëwee dootu dellu si lu ko waral rab baa koy dàq walla nga jikki-jikki wan kooku ginnaaw dootoo ko bëgg a gis su la waxan fu sax doo ko bëgg a tontu mu ne loolu yëpp du dara liggéeyaloo rab la ndax ni góor di fiiree jabaram mm. noonu la rab di fiiree jabaram ak jëkkëram yépp laa ilaaha rab comme nit ñaari côté yëpp lay fiire. waaw waaw day fiire ci jëkkër léeg-léeg nga soxla sa jabar bëgg ko mu ne du fi amee. nga dégg am ñu naan lu ñëw ñu jën ko rab te alors rab du jëm maanaam da ngay gis ay gestes yu ki def nga xam ne lii am na mu àndal. ak carrément léeg-léeg nga wax nit sarax sax mu dem ba di ko bëgg a def bàyyi wala mu dem ba bëgg ñëw dootul mën a ñëw toog loola rab baa koy téye ndax am na nag koy wuti. te looloo gën a bon. waaw. mu jaxase sa xel nga jaxasoo léeg-léeg euh, pour nga dem bu ko bëgg koo faj doo ko mën a faj ndax li tax doo ko mën a faj dangay dem war koo dem yóbbu la ngay war a fajoo rab téye la doo mën a dem dangay tayal wala nga sa xel nekk ci leneen. d'accord loolu yëpp rab a lay jaxase. aywa loolu yëpp rab moo lay jaxase euh, kii nekk sa soxna mënuloo am doom wala yow soo ndox oyof woo ko parce que vraiment lii xajul ci émission bi tey et puis euh, li muy faj bari na bari na lu bari loo xam ni ci wàllu yoon. wàllu kaso mooy wàllu yoon wàllu coowal tribunal am na sarax yoo xam ne day fay coow du ko wax fii euh, parce que temps bi dafa xat mais ci wàllu njariñu sarax xam na euh, am na sarax yoo xam ne day fay coow am na it tolof tolof yoo xam ne boo ci nekkee ak sa borom kër ci wàllu noob mu ngi koy liggéey ci caasu golo mu ngi koy liggéey ci caasu golo ak kànnaar bi ñi nga xam ni seen jabar dañ leen wan ginnaaw waxuma ay farak gel yëfu caaxaan yooyu moom du ko def mais ki nga xam ne da nga nekkoon ak sa jabaru tubaab wala sa jabaru ñuul ñuul foo mën a ne mu war la. jékki-jékki wan la gannaaw jékki-jékki wan la ginnaaw am na lu muy liggéey ci caasu golo wala ci kànnaar. yaakaar naa ni boo ko xasee ba tëj jeex na c'est fini. donc loolee it boo ci amee yita dinañ ci waxtaanaat prochaine émission lu bëri danañ waxtaanee ci njariñu sarax parce que am na ay tegtalu sarax yoo xam ni yaa ngi koy faral di joxe macha allah dafa baax du def ñett fan mais léegi avant ñuy tourner dafa am lu ñu la laaj nga ne ci nga di ko defar ñu ne la maire doo génn lii nga bët baaxul Mhm. cuuraayu seytaane bi ak cangacu cat ki cat jàpp dëgg dëgg dëgg ba nga xam ne kii lu mu laal mu dëgër fu mu dem ñu dàq ko ki ngelaw dugg léegi lañ la fekk nga di ko liggéey mais biñ la la wane ko da bañ loolu dëgg dëgg te ki ko jël première guddi mu dàq moom. bët baaxul bët dafa baaxut ku xam dara ku xamut dara am na bët boo xam ne gàllaaj bu mu tegee mu toj mu toj garabu seytaane ku ne xam ne boo ko weeree ñu yàq ko seytaane da ko yàq. waaye nag am na loo xam ne boo ko ci defee kenn du ko mënal dara moo tax nag man lu baax denc sa yëf baax d'accord mais cuuraayu seetaan yaa ngi ko doon liggéey léegi nii léegi lu muy def ci nit ki ak cangatu cat parce que am na cat boo xam ne yaa yaa ngi koy wax benn parfum bu muy àndal ak cu ah, puso yu muy àndal yoo xam ni ku kooku pour cat la waaw bala laa raba dugg wala seytaane dugg la mbaam liggéey dugg la cat dalaa dugg ba pare yal yàlla musal ci cat amiin cat day boros cuuraay yi daal moom macha allah saa yo boo xamante ndax xam nga dinga gis koo xam ne léeg-léeg mu tëdd du mën a nelaw mbaa mu nelaw ba xaaju guddi mel ni dañ koo yee mën a nelaw lu ko def ak ko def du mën a nelaw di bëtër ñu ko ba bët set mbaa balaa nelawaat fajar gi jot gi nga cuuraay dama laa wax ne lu du génn ñu di ko teg bët mm-hmm. waaye boo boo xamante ne yaw mii xam nga ne yow mii lii catala jot wala rab wala lu mu manti doon wala seytaane nga suuroo ko guddi googa di nga nelaw boo daawut nelaw da nga nelaw bu la fekkeek métitu bopp day deñ a koy def mbaa seytaane nag yal nañu ci yàlla musal saytaane bala laa dugg cat la dugg. dëgg la mais cat li cat dugg saytaane mais cat li am na ci mais cat li li ma jaaxal Moussa mooy dafa garaaw parce que moom boo ko laalee sa cat day biri fe rek rombal mais am na lu garaaw lu mu ciy joxe loo xam ne lu tax souvent doo ko bëgg a wax ci télé bi. buñ la ko laajee nga bañ. du ma ci wax ndax ñi euh, xam nga lu tax du ma ko wax. waaw ñi nekk ci liggéey bi dafa bari. dëgg ak xele yi. la boo déplacé sa secret ñu yàqal ko. dëgg la looloo tax ma bañ koo dobaloote. Ah. waaye ku fi ñëw ba jàkkaaru man ma jox la sama cuuraay yi boo demee di nga xam. allahu akbar ku nga dolli boo gisee it mën naa la jàkk ne la boo demee bala nga maa fay dangaa gis li nga bëgg loolu la fen laay bañ ndax kenn mënul dara yàlla moo man dëgg la boo fay koo nit ne ko fay ma mu fay la yëkkati alalam jox la nga dem defal ko li nga ko defal gisu ko nag. d'accord léegi dernier point te loo lekk ci nit. Mhm. dërëm boo ci lekk di nga ko fay yàlla xaral dërëm boo yóbbu yóbbaale barsàq boo ne cëpp dañu ne ñetti ba fan yi ba amee déedéet bu ñun suulee juróom-ñaari jéego la ñuy dox. malaaka yi ñëw yëkkatiwaat la yëkkati la ba nga dañu jàkkaarloog ñoom di wax carnet bii kat yu baax la woon bii carnet kat bu bon la woon yaa ko defoon Fatou Ngom fii loo foo ko jëlee ak foo ko dugal d'accord la ilaha illallah looloo tax waxam yëpp euh, ci loolu la koy tënk dernier point bi nag mooy combat bi musuloo mm-hmm. développé ci làmb xam-xam bi lu ma leen wax rek dafa bari ci moom am na lu bari lu nekk ci moom ki am sa doom maara day taali mënta wax maara day taali Moussa fa xasal say nopp maara day mu juddu maara dey taal yi am na lu mu ciy liggéey ci wàllu lem loo xam ni bu ko joxee sa doom bu ko naanee mu wax. wax dëgg yàlla yooyu yëpp war nañ ci waxtaane semaine prochaine ci wàllu rab. Mm-hmm. parce que rab dafa yaatu. fa mm-hmm. vaste fa bari. donc eh, sa sa taalibe yi nekk ci diaspora bi souvent boo génnee dañ lay seetaan di déglu say waxtaan. Mm-hmm. am na ñoo xam ni sax duñ seetaan mère bi gént. lañuy dajee ak moom ñëw seet si ko. loolu mayu yàlla ku nekk nag dañ ko nangul la ko yàlla may wax na ko léegi dañoo bari léegi sëriñ ci bari nañ waaye terewul am na lu yàlla may ndax am na koo xam ni musul am doom seetaan ko woo ko mooy numéro yi di affiché 77 597 96 wala 77 241 37 mu woote jokkoo ak moom mu xoolal ko génnal ko sax faj ko faj jabaram te rab dafa bon. ndax mën na laa téye nga toog bay am quarante et quelque te doo am doom musiba la yaafus baaxul te mbir la moo xam ni su lay yàqal da lay découragé loo du mel ni rab la dalay jaxase ba bu ñu la waxee sax doo ko def foofu rek lañ mën a yem ok mais combat Modou Lô Ama Baldé moment bi tol nii fan la état yi toll par rapport ak Modou Lô ak i lan nga gis parce que dégg nañ la nga ni jël dina am te du sori saako yi waaw jël saako yi ñaareel ba dafa am loo xam ne dafa cee feeñ mhm. muy liy feeñ mooy lan mhm. mooy li nga xam ne mhm. mystique la la ilaha illallah muy gàllaaj yi nga xam ne moom la ñuy indi li may jëkk a wax mooy xale yu jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo ñetti néegu say amaguñu doom waaw nañu moytu di dem ci làmb ji ndax am na gàllaaj goo xam ne jigéen ju ko gis dootoo am doom la jigéen ju ko gis bala nga am jëkkër da nga sonn torop kon na xale yu jigéen yi di moytu làmb d'accord mais côté gàllaaj bi kan nga jàpp ni moo gën a jekku parce que dégg nañ li nga ne dana bëri mystique. bari na mystique gàllaaj bari na waaye nag. Mhm. ki nga xam ne mooy Modou Lo di Ama Baldé di ñaari xele yi nga xam ne ñoo war a daje. Mhm. dafa am mystique de am na ci koo xam ne. Mhm. bu ci yàlla àndee. Ah, du mën a kenn keneen daan ndax jële yàllaa koy rek. waaye nag Modou Lo man de wax dëgg yàlla su ma doon teg naa teg ci moom. laa ilaaha illa boo doon teg di teg ci moom. da nga jàpp ni da nga jàpp ni da nga jàpp ni moo ëpp gàllaaj moo ëpp gàllaaj moo ëpp miskit bu ci yàlla àndee noo ngi dem bisa ngi ñëw muy dimanche yàlla nañu ko fekkee te tal ko laa ilaha illallah ba altine nañu toog fii waxtaan mais dama gis démb Ama Baldé mu mel ni ko xaw a jeex waaw bët yi commencé dugg am na lu xew de mystique moo ko jàpp kii dafa am gàllaaj te ñi mee tëriñ te ñi xor ñi mën naa joxe ñi mën naa dugg ñi mën naa mystique moom Modou Lo waaw mais boo ko gisee da ngay foog ni arabisant la wane ko. waaw ndax xam nga ibaadu la waaye daal ah caay caay ruudu waa leen biir. mais dañ la dégg jamono yee paase nga ni am na benn kilifa bu muy àndal boo xam ni buggul mu feeñ. kilifa googu koy doxal ñoo ànd fu ñuy dem seen tànk cay ànd dem du ma wax tur xam naa ko waaye du ko wax. xalaatoo ko. waaw kilifa googu ñoom fu ñu mës a ànd ñooy ànd lu ñuy def ñoo koy def. te ni sama waaye loolu ñëwul loolu la Ama Baldé xam ba tax ñëwul TFM ca jàkkaarloo bu mujj ba jàkkaarloo ba ay tegtal lañ ko wax rek nag ay lañ ko wax moo tax mu daw ba ñëwut te jàkkaarloo ba lu ci nekk rek sa sëriñ la koy wax mais eh, fan nga jàpp ni fa lay jëli bi di amee parce que diggante saako yi ak ak ak ci digg bi du du sori saako yi du sori digg bi laa ilaha illallah du sori saako yi du sori digg bi à suivre fa la ñuy yem euh, lan ngay tàggoo dégg ngeen li wax ci combat bi euh, lan ngay wax dénk nag xale yi supporters yi surtout parce que lépp fii lay yem Pikine Parcelles benn la surtout loolu. lépp Sénégal la en tant lu ci yaay wàlla def lu ci yàlla wax maa lu ci nit def. Hmm. sa bopp nga koy def. ndax ndax lambu am ngay dajji bagage jaambur jël téléphone jaambur. di dóore di xaay ñu di la jàpp di la tëj di la dóor dara jaru ko fi alal ji fi la ñu koy bàyyi. lii nuy def fi lañu koy bàyyi kenn xamut ban bés la kenn xamut fan la kenn xamut fuñ koy defee mm-hmm. nanuy sooraale yàlla mm-hmm. te xam ne luy yàlla la mm-hmm. bàyyi leen agressé xale yi nañu moytu seen bopp nañu moytu seen bopp ndax kat ku ñam dugg ci nekk ak tàngoor yi ni mu tàng nga dugg ci sam néeg ti amoo fenêtre amoo dara nga xam ne kaso musi na kon na ku ciy def loo xam ne lu ci yóbbu dangeen koy wàññi wàññi leen te teey te réglé te yaru nit lu mu mënta am te amul yar rek amul dara yar ak i teggin rek moom laay dénk xale yi toujours di ko dénk sa bopp di ko dénk man de ba fii ma toog nii di mag wax dëgg yàlla dem ah, lu ma dal damaa bett waaye yarok tey rek sama maam def na ko ci man sama maam nag ma yar jërëjëf maamam moo ko yar mu nekkoon ajaratu Fatou Ngom Saltigué di waxtaan di ko xam ne nag wax dëgg yàlla boroom xam-xam la hmm, bëri na lu bari loo xam ne mi ngi ci moom mu di ko dimbali jaami yàlla yi ak doomu aadama yi combat la nag lam ca gis la wax jàpp neen bu gisaa li doon it da koy wax yàlla ka xam nag liy xew suba jërë ngeen jëf merci beaucoup